lii de mbuur la xewee mbuur na xewee benn waaye bu dugg si bi yor di dóor rek mel ni ku nekk ku yor kuy joué film mu ne nii nag rey na ñetti nit ñoo xamante ni dee nañ léegi nag instant bi nii policiers yi ñoo ñëw téye ko askan bi génn pour bokkoo kidnappé di joteeg policiers yi gisoo ko de mbuur la am mi ngi nii bi nii mi ngi nii mbuur la nekk nii fi la bi amee benn waay moom mandi la daal yor pusaleem di dóor rey na ñetti nag askan bi fi ne nii policiers yi dañ koo téye mais ñi xataraayu ko bët koo jàpp lii de mbuur la xewee mbuur mbuur la xewee benn waaye bu dugg si marché bi yor pusaleem di dóor rek mel ni ku nekk ku yor ku joué film nii nag rey na ñetti nit ñoo xamante ni dee nañ léegi nag instant bi nii policiers yi ñoo ñëw téye ko askan bi génn pour ko kidnappé di joteeg policiers yi gis nga ko de Mbour la am mi nii ñu si marché Mbour bi nii mi ngi nii Mbour la nekk nii fi la problème bi amee benn waay moom mandi la daal yor pusaleem bi dóor rey na ñetti nag askan bi fi mu nii policiers yi dañ koo téye mais ñi xataraayu pour bokkoo jàpp